jigéen di woy ci turu Albouri Sarr moom moo daal di dëdd àdduna mbir mu nu mel nag mi ngi ko daal di fësal rek ci compte Facebook am ginnaaw nag bu mu waxee ne rek ñàkk na koo xamante ne rek ku ko jegele woon waaye nag ñàkk na magam ñàkk na koo xamante ne rek ñoom ñaa ñu bokkoon nday ak baay mu nekk nag mbir moo xamante ne rek mbir mu métti la xanaa di ko ñaanal yàlla rek may ko xolu muñ ba noppi rek daal di yërëm aji dem gi te xeral ko aljana ba tey bu ñu jógee ko foofu nag dañuy desandi rek ci accident bi nga xamante ne daal di wan am nag niki démb ci diggante ab minicar ak benn camion bi nga xamante ni rek daal di woon nañ mbëkkante niki démb nag ni minicar nag dal ci kaw camion daal dinay jur juróom-ñeenti doomu aadama yoo xamante ne rek ñàkk nañ ci seen bakkan ak fukk ak ñett yi nga xamante ne rek daal dinañ ciy jëlee gaañu gaañu yu métti métti fi nga xamante ne rek moom mooy eh, diwaan bu xuuru Mbàkke ci diggante Nduulu ak Daala ak Ngaabu nekk ci région bu Jurbel liste yi nag daal dinañu koy fësal ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ka ci jiitu nag di Modou Diop nekk chauffeur minicar ba Jéeni Silla Koti Thiam Abi Seck Thiam Adja Fama Pen Fatou Diouf Fatou Diallo Mariama Fall ak Mariatu Silla xanaa di leen di ñaanal yàlla rek yërëm leen te xaral leen àjjana ñu fàttali leen rek minicar bi nag mu ngi jugee ko woon bu Touba Mbacké daal di yeboon ak njaboot goo xamante ne rek ñoom ñëpp ñoo bokk même famille dëkk ca diwaan bu Jurbel nag ñëwoon lekk ca diwaan bu Daaru Marnaan nag ngir amal doon fa jaal ginnaaw bu ñu fa amee nag ab dëcc boobulee minicar ci boppam nag ne nañ ab camion moom moo daal di rek ñëw dal ci kawam bu ñu sukkandikoo rek ci sunu nattangooy Dakar ak ci di leen ñaanal yàlla yërëm leen te xaral leen ajjana jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné bés cloche de notification yi ngir mun a am yeneen i xibaar